rek ami cheikh fidèles internautes ñu ngi fi nga xamante ni rek moom mooy euh, Bargny euh, Géej euh, fas yéene woy waxtaan ak ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo dëkkee file ci li nga xamante ni rek moom mooy drame bi nga xamante ni rek ñoo ko yëgandoo ñun ñëpp ñu toog ak benn kilifa dañ koy nuyu rek bàyyi ko mu présenté wu wax ñu moom mooy kan ñu ngi leen nuyu kilifa gi bu baax a baax di la ziar. na def maa ngi lay fay. di nuyu waa Exposé di leen di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla leen ci ñëw bi ngeen ñëw Bargny pour li nga xam ne moo xew di ab drame bu am si Sénégal ngeen ñëw fi Bargny di leer lu se ñu ngi leen di nuyu di leen fay. man maay Thiane Wade nekk coordinateur conseil local des pêches artisanales bu CLPA bu Bargny Géej Sendou quoi oui. Mhm. li nga xamante ni moom mooy drame bi yaakaar naa ni euh, euh, fës na lool ci li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi euh, ci ay gaal yoo xamante ni ñu ngi wax ni déparé na fi nga xamante ni moom mooy gan wala am na yoo xam ne déparé na fi waaye bi nga xamante ni moom moo ci gën a fës muy cent personnes yoo xamante ni dañoo jëloon gaal gi 24 ñoom ñoo ci sauvé muy phénomène boo xamante ni ñu bëri ñu ngi koy waxtaanee jamono ji ban gis-gis nga ci am. waaw xanaa di lu lool di xam ne aussi c'est un phénomène boo xam ne rek nit ñi dugg si. yàlla mi dara teewul am na ñu dem sauvé am na ñu dem oñeeku am na ñu dem des fa mais di ñaanal ñi nga xam ne ñoo dem te yegg yàlla jàppale leen ba la ñu uti ñu am ko di ñaanal ñi nekk si yoon bi yàlla leeral seen yoon ba ñu mën yegg ñi nga xam ne waajoo waajoon nañ nag te bëgg dem te xam na yoon wi tëj na nañ toog jàpp xaar bépp yeneen jamono parce que géej gi moom neexatul ndax euh, ngelaw na ngelaw boo xam ne kenn mënatul dem donc ñi xam ne dañu waajoon pour dem nañ toog mooy comme li nit ñi rek ñu ngi si dee ay sensibilisation pour nit ñi nga xam ne yoon wi fàttali na nañ toog ba mu ubbeeku. mu nekk loo xamante ni maanaam bu fekkee comme sànq ni ko waxee say biir wax soo mënee ndox mën nga cee génn waaye boo mënul ndox moom da nga des. xam nga ndox euh, mën nga kaa mën waaye à perte de vue nga xam ne dem nga ay centaine de kilomètres foofu man ndox yàlla rek moo fiy des. tu vois bi parce que à perte de vue duñ ko mën a parce que deux jours nit mënul mënul résister deux jours si sedd bi. wala trois jours donc mën dox dafa am fu mu yem yàlla de mooy dimbali nit yem si yow mbaa gaal yem si yow rek sauvé la mais bu fekkente ne jigéen tefes gi mais bu dee euh, à perte de moom kooku moom kenn mënu si dara mais bu dee jigéen tefes gi comme ni mu amee nii am na ñoo xam ne ne mën nañu fay mais ñu mënul fay nag li ñu jàpp sax ñu mën a fay ñooñu ñu yóbbaale leen tu as vu. gaal yi lan moo koy euh, moo koy dëpp ci moo koy këpp biir ci biir. gaal du egg këpp si biir géej <laughs> yaa am phénomène boo xamante ni moo am gaal géej dafa am ay ay ay normes norme yi mooy géej day neex di naxadi bu naxadee nga toog bu neexee nga dem waaw gaal gi ne xamul ko jàpp mais fi mu amee problème ak fa mu jaaroon bon am na leneen lu si am man nag xamuma ndax demuma fa tubaab yi dañ jot message bi rek di wax mais dañ ne gaal gi dafa te teer dafa dal si paas paas nag biti ne way xam nga da wàcc si xamul fi mu jëm mu dal si paas bu dal si paas nag paas mooy ban ban de sable yi nga xam ne mooy am si géej Eh, ou bien day roose nga xam ne aussi ñoo am si géej loolu mooy paas waaye. boo xamante ni eh, ci nga war a eh, dem ak moment boo xamante ni waroo dem kon moment bi baaxul pour xale li di jël li nga xam ne mooy gaal bi. moment moment bi favorable mooy à mois de mai juin juillet août favorable na mais léegi nag fi ñu toll actuellement ce n'est plus favorable ndax it euh, jamono yi euh, jamono no nawet la géej gi day dal côté boobu fii mooy naxaat bu fekkente ne noor la nag fële mooy naxaat yi fii mooy nee. bon noor commencé nag ginnaaw noor commencé nag foofu moom c'est fermé tëju na loolu moo. dem ci gaal bi ñoo xamante ni xam nga leen ñu àgg ci jàmm. waaw xam nañu ñoo xam ne xam naa leen ñu àgg si jàmm loolu am na moom. en tant que euh, per de famille en tant que kilifa boo gisee xale yi nga xamante ni euh, dañuy motiver wu ñoom ñëpp euh, jël li nga xam ne moom mooy gaal bi te mun leen jural loo xamante ni maara day taal parce que ku ne xam na ni géej amul bànkaas comme ni ko olof Ndiaye di waxee tey lan nga wax xale yi nga xamante ni nanguñu tuñ toog Sénégal. ma di wax mooy nit ki xam naa ñooñu dem am na ay kilifa lañu am mais bu ñuy dem seen i kilifa duñu ko yëg duñ tàggu seen kilifa am na ñoo xam bu ñu tàggu seen kilifa dañ leen di aaye ñu tee dem. yàlla mën leen dimbali ñu jàll yàlla mën leen dimbali duñ jàll mais ñi nga xam ne tàggu nañ seen kilifa yàlla dimbali leen jàll ñu ba jàlluñu aussi loolu loo xam ne moo moo xam fii mooy nit ki bu fekkente ne da ngay dem si loo xamante ne géej amul baxance yaa ko waaye nag euh, lu mat ay 4000 kilomètres yoo xam ne da nga siy jaar di daw 5 6 jours vraiment am na ñoo xam ne moomuñu ko ñi ko moomul dañu war a xam ne lii du seen yoon ñu wut beneen yoon bu ñuy jaar ñi nga xam ne aussi tàmm nañ géej te xam nañ géej mën nañ ci am chance jàll mais chance la rek ko mhm. dégg ñenn ñi nga xamante ni demoon nañu euh, euh, maanaam di euh, naan doon ay rescapé jafe-jafe yi nga xamante nañ koy dund ci biir géej bi day dem ba duñu amati lu ñu lekk lu ñu naan loolu tamit nga ñu ci mën a wax en tant que. duñu am lu ñu lekk lu ñu naan loolu nag am na si waaye bariwut nag parce que ñuy xam naa ñu ngi dem ñu ngi seen i lekk ñenn sax lekk bi jeex si biir bon bon ki nga xam ne sont les responsables ñoo deful li ñu leen war mais lekk bu dul jeex bu fekkee da dem foo xamante bi xam a yor lekk bu dey door dox bu dey waaw c'est boo xam ne moo am waaye nag nit ñi les responsables ñi nga xam ne ñooy yóbbu war am responsabilité xool vérifier li nga xam ne moom la ñu ndax mën na yegg wala mënu yegg muy essence muy li ngay lekk muy li ngay naan ndax loolu moo yor nit waaye. des fois nga dégg euh, ñu bëri naan day am luy rax ci géej gi. ñu ci bokk ñoo xamante ni maanaam mun nañ ni sax duñu ay nit yooyu itam dañ koy dégg des fois ci ñi nga xam ne ñoom ñoo rescapé yi ñu koy wax ci lu ñu dund ci biir gaal gi. waaw loolu de ni nga ko déggee rek man noonu laa koy déggee parce que dugguma ni nga ko déggee rek noonu laa koy déggee waaw te mënuma qualifier aussi ndax loo dégg rek mën na si wax lu leer quoi. Mhm. bu dem wala. man am naa doom bu dem waaw sincèrement am naa doom bu dem. samay doom nag ay mool lañu. waaw parce que man mool laa si laa judd si laa màgg. mosuma dem fenn géej rek laa mos a dem waaw. ban ñi fii waaye ba yëguma leen. dama xëy gis gis ñaar ñaari fan gisuma leen parce que dañ daan finance ci gaal yi su ne dañu yor ay gaal gaal yi na si géej ñoom ñu finance ci gaal gis gaal guy dem ñu dugg si xam nga loolu mën na si dara hmm? parce que boobu dañuy finance gaal yi pour surveiller gaal yi parce que gaal yi dafa am phénomène si am dañuy sàcc gaal yi dafa dem ba dañuy sàcc suñuy gaal ak suñuy man mi sàcc nañ suñ suñ su sama moteur rek sàcc nañ am na gaal yu ñu sàcc am na moteur yu ñu sàcc moo taxoon suñu doom di finance ci gaal yi pour surveiller gaal yi waaye surveillance si lañ fëtti rek dal di ci dem rek te ne bu ñu waxee ñu am nañu fi déparé moom sincèrement am nañu fi déparé moom mhm. mais yu fi déparé si ëpp yegg nañ fii waaw yu si jamono yooyu yegg nañ mais le temps était favorable ñooñ ba ñuy départ jamono ji am na am nañ fi départ yu si départ te si jamono ji yegguñu ñu ngi teer Mauritanie ñu ngi teer euh, euh, Daxla yegguñu. Hmm. ñu jigéen ñu yor ay doom di dugg ci gaal gi loolu tamit est que nekkul risque selon ah kay la mooy jigéen wulu dugg si di dem ñaari fan wulu dugg sax si gaal man d'accord ma jigéen jigéen buy dugg gaal d'accord ma si waaye mais loolu risque la ñeneen di bàyyi aussi ñuy dem ay risque la ñuy def. parce que ñooñu dem jomul tàgg nañ seen kilifa ñu bàyyi leen bàyyi seen i kilifa bàyyi ñu leen ñenn ñi sax du leen yëg nag mais c'est un risque kilifa ak xale ñu dugg si gaal yooyu dem soo xam ne une semaine nga koy daw. gis ni bar ñi fii gis nañ ay jeunes yu bari yoo xamante ni dañuy dem dañuy dem lan moo tax bar ñi dafa amul liggéey wala lan mooy tax xale yi di bëgg a dem dem dem. xam nga bar ñi gi mosuñoo dem fen lu mooy dem géej ñëw naan sa attaaya toog nekk sëñ Bal di liggéey booba géej dafa am jën mosu ñoo xam sax leneen lu mooy dem géej defuñu defuñu leen bu géej amee jën ñoom ñu leneen nañ dem géej ñëw jël seen xaalis toog waxtaan ak seen i morom waaye léegi yaa am phénomène boo xam ne dañuy wax ne géej gi gis nga ko géej gi ndox rek la ndoxu kese la amatul jën mën nga dem fii rek euh, Cap Skirring doo gis benn jën bu fet mbaa bu ras mbaa naa nga jaay sa essence deux millions cent un million ñaari fan ñetti fan nga ñëw indiwoo dara nooy def da ngay chercher gaal toog bu fekkee amuloo fond te aussi doo jël fonds yi si si essence léegi mool yooyu nga xam ne sont les acteurs les jeunes pêcheurs ñoo daan daa ñuy toog si mbaar yi daawuñu toog si mbaar ay mag ñoo fi daan toog mbaar yi pour ay mag la mais pour ay xale mais da ngay fekk mbaar nga fees ay xale ñàkk jën gi te ñàkk jën gi da nga ma la ñàkk jën lan moo ko waral waaw kay si nga jëm ñàkk jën gi li mooy dañu wax ne les yi nga xam ne moom la état di signé ak les euh, bailleurs bëgg ñu arrêté ko ñu xoolaat nan la ñuy def ndax am na lu xew loo xam ne gis nañ ko ñoom gis nañ ko seen bopp way donc ginnaaw gis nañu lii xew dañu war taxaw xoolaat ñu toog waxtaan nit ñi des acteurs nan la ñuy def pour générer la ressource ñu ressource mën amaat nit ñi mën dem géej jàpp seen bu jën amoon fii gis nañu bu jën amoon nii duñu fi toog de dutuñu sax waxi mbëkk même bi jën moo amul fen au niveau national mu la ko daree Mauritanie ba Cap Skirring jën amatu fi te gaal di jaan campagne ñi dem Ndar ñu dem ñi dem Kayar ñu dem uh, yoof ñu naan jën am na yoof nga tëmb mbaali dem yoof dellu siwaat baa nga tëmb dem kap kap mbaali teer foofu campagne baa nga teer Kafountine métti na samay wàkk wax naa ne dem nañ bàyyi nañu fi dem xamuñu sax xamuñu sax fu bi ñuy dem donc puisque am nañ gaal goo xam ne am nañ ñett depuis mois de août ñu géej te ñu ngi dépense ñu ngi lekk ñu ngi naan ñoom la ñu lay yow ngay joxe toujours jombul ñu uti lu ñu def parce que mag bu dee bu dee yore jabar baayam ay yaayam yor ko dafa metti oui te li fi jaar mooy dama ko waxoon en 2006 mooy c'est un phénomène boo xam ne c'est majeur mooy état jëloon sa responsabilité euh, waa Frontex Union européenne joxe woon xaalis pour ñu financer les acteurs ñu financer acteurs yi bàyyi pêcheurs yi te pêcheurs yi ñooy buggaal ba béykat yóbbu ko sàmmkat yóbbu ko forestier yóbbu ko donc pêcheur bi yóbbu gaal boo ko financer finance ñeneen. bu ëllëgee bu gisee keneen ko fay mu yóbbu ko ñu dem ñeneen dañ leen fay oui jël seen responsabilité mais nag ñi nga xam ne mën nañu yóbbu gaal dem nañu yegg ñi nga xam ne mënuñu yóbbu gaal aussi dem nañu fi sànni nit ñi fii parce que am ay mool yoo xam ne mënuñu yóbbu gaal aussi te yow da nga jóge fële xamuloo mool te aussi bu ñu koy dañuy dañuy nëbbu ñun sax dañ si am coono c'est parce que ñun dañuy nëbbu dem am problème ñun ñooy subir conséquences yi ñun nañuy woo ñooy wax bu ngeen ñëwee ñun ngeen di seet donc am na loo xam ne daal c'est un daal kenn xamul lan la et c'est majeur te nag du Bargny rek dans tout le Sénégal oui am na gaal yu jóge am na ka Kafountine am na jóge si euh, Île des Saloum yëpp mais nag Bargny moo am ay gaal moo des ay gaal yoo xamante ni gaal yu mag la yu dëgër oui. bala rek euh, nga tàggatoo ak nga lancer message bi nga bëgg a lancer état daal mooy état na jël ay responsabilités comme ni mu ko waxee mais si biir loolu. na ool nit ñi waxtaan ak ñoom pour def la reconversion des acteurs ñi nga xam ne aussi dem nañu xam ne ñoo fa ne yàlla téye leen ba ñu ñuy liggéey am nañu jàpp li tax ñu jóg ñu mën a jox seen i njaboot ñi nga xam ne ñoo ne si yoon wi aussi te dem te yegguñu yàlla nañu yegg si jàmm ñi ne ñoo doon waaj nag ñaan leen ne état waxee nañu toog te xam ne yoon wi tëju na kenn mënatul dem dafa sedd benn dafa sedd ndax commencé na sedd dafa am vidéo boo xam ne bu génnee rek sedd mooy génn te vidéo boo génnee depuis fin euh, mois bi passé donc c'est le commencé amee te loolu kan moo koy xam moom rek moo koy xam. nga géej nga jógee nii. géej laa jógee nii gis nga maa ngi doog a teex. Uh-huh. soobu léegi ñu si géej. Uh-huh. gis nga xam nga lii di yoon lii di yoon kii yow kaay carrément dara moo tax nu dëkk bi mbëkki nañ. Uh-huh. seet lu ñu am. loolu ñàkk jën bi. ba tey Amathou Sall jël suñu géej gi jaay ko mën noo dem kay mën noo dem fen lu nu war a mbaal ba tey mbaal ko kay. te mënu jot fi gaa ba tey di jot nu muy defee kon xam nga kon géej gi doomu jën ah xul gi na ko si ginnaaw yëpp ay mbaal fer la si ginnaaw yëpp ay mbaal fer yi dama ñu géej ba pare lii rek lay tere ah, gis nga moom géej gi daaw saabu na ko ndaaw dem nga soobu lee mënoo am ndaaw lii li nga am lii lii songa ga def tey gis tey mooy normal tey bu gisoon gaa yi bëgg tey nga may bu josee bu xaajin gi dem bëgg noppaloo nu ngi nii dañu sonno sa waay dañu sonno si géej dañu sonno si Macky dañu sonno gis nga mu ngi nii dañu sonn waxal ak waxal ak ñoom ah.